léegi gént dafay wax. waaw te dafay dox te dafay changé. dëgg la day ëlbatiku. gént dafa mel ni loo xam ne da ko dafa nekk lu mel ni seetu. waaw saa yu nekk mën na ëlbatiku saa yu ne. léegi nag yow boo xamul gént mënoo ko firi ndax gént communication la entre jaam bi ak jinne yi. waaw wala jaam bi ak roxaan yi. waaw wala bi ak arwaax yi mooy ruuxu yi. waaw wala jaam bi ak borom bi. ruuxu yi dañuy wax ak jaam bi mooy ñi dee. waaw seen jëmm yi seena bu yàgg. seen ruuxu yi moo des ñooy wax ak nga sama maam gént naa ko. waaw mais du yaram ba ngay gis. yaram ba seena ba suuf si lekk na ko. wallaay arwa bi mooy wax ak yow. communication arwa ak arwa sa roxom moo dem ci moom bala roxom ñëw. dëgg parce que dee na ba ñu suul ko ma ngaa laa na yow yaa ngi àddina bi. su gisee amee kenn dem yow yaa dem. waaw wala moo ñëw. léegi man rek maa mën a wax. waaw yaa dem wala moo ñëw ndax système bi maa xam nu mu. nu mu tëddee parce que ki dee te ku ne ci àddina mënta dem àllaaxira nu ngeen def yéen ñaar ba mën a jokkoo loolu maa ko mën loolu maa maa ngi koy teg ci plateau laaj borom ko mën a leeral loolu. loolu koy xam ne yëg yëg ne maanaam kii boobu loolu am na ki war a dem ak ki war a ñëw. loolu ci plateau xam-xam lay dem. dëgg la. nit ki dee na. waaw. ñaar téeméeri at. ma ci biir suuf su nañ ko séenal leer na ñëpp ne dee na. waaw yow nga géntu ko. ci dëgg la. yaa ngi dégg. yow nga gëpp yaa ngi àddina. waaw moom nga àllaaxira. waaw te àllaaxira moom gis ne gars yi nee nañ nee nañ ñoom nee nañ. waaw gisaguñ ku dem ñëwaat. déedéet loolu kay ñëpp ko saxal. waaw léegi xam-xam yi yow. léegi yow ku ne ci àddina bu gisee ku ne àllaaxira. waaw moo dem wala ki ne àllaaxira moo ñëw ku nekk àllaaxira ñëwee. waaw gis nañ ku dem dikk su dee yaa dem dikkaat nga dañuy nekk liggéeyante. loolu loolu la loolu la mooy ka la ñuy wax si Faatiha ñuy wax ne bisimilah bokk na ci bokkut ci ku ne ci la bokk te te fekk mu ñu ne bokkut ci ñi ko si génnee am nañ bàkkaar ku ne bokkut ci te fekk ca la bokk ñu ko si dugal bu am nañ bàkkaar. non bisimilah moom ku wax ne bisimilah rahmaani rahim ngay wax. waaw mais bisimilah ku ne bokk na ci Faatiha wala bokk ci Faatiha. waaw amoo problème bisimilah moom nit mën naa werante ndax bokk na ci bokk bisimilah kese. waaw waaye bisimilah rahmaani rahim moom la ñuy bañ. man moom man. waaw bisimilah rahmaani rahiim bokkut ci Faatiha loolu laay bañ. allahu akbar waaye bisimilah moom mën nañ caa werante ma indi la ci ay la yu lay. ay lay yuy nangu yooyu nangu ne. Ah. bokk mën a Faatiha waaye dafa bokk ci lépp. bisimilah kese. waaw dafa bokk ci lépp. dëgg la ndax. boo demee ci suratu nam ni waaw da ngay fekk yàlla wax innahu min suleymaana wa illahoo bismillahi rahmaani rahimi dëgg la léegi bismillahi rahmaani rahimi alquran la loolu set na wecce moom na alxuraan la wérante wuñ ci léegi rahmaani rahim moom ci faatiha la bokk ndax boo waxee alhamdulilahi rabbil alamin dañu topp rahmaani rahim kon mënoo ko yaa génnee moom ci faatiha la bokk kenn wérante wu kenn mënut koo weddi kon boo waxee ne rahmaani bismillahi rahmaani rahim yi bokkut ci faatiha dama lay wax da ngaa xër da ngaa xër ci da ngaa xaabaabal bul xaabaabal da ngaa naan bismillahi moo ci bokkut ñu waxtaan ne ko waaye rahmaani rahim moom même ñiy weddi di bañ a wax bisimilah rahmaani rahim ba ñuy commencé ci Faatiha dañoo war a wax rahmaani rahim bu ñu ha mursaha boobu ñëw si yoratu noo. ah yoratu noo waaw si yoratu noo la bokk ci alquran la bokk wérante duñ ko. dëgg la ndax ma nga ci indiwoo min Souleymane woy noo bisimilah rahmaani rahim léegi bisimilah yi fa la bokk moom ci alquran kenn wérante bisimilah alquran la léegi ndax ci Fatiha la bokk lool war loolu ñuy werante waaye rahmaani rahim moom xanaa lu nit na naam kal war ngaa xam ne rahmaani rahim ci Fatiha la bokk <laughs> léegi moo tax ñii wax bisimilahi rahmaani rahim ci kaw loolu ñooñu dama leen wax dañoo xër euh. mënoon nañoo wax bisimilahi ci suuf wax ci kaw alhamdulilahi rabbil alamin mais waruñoo commencé alhamdulilahi rabbil alamin ndax rahmaani rahim mu ngi ci biir Fatiha biir la de <laughs> allahu akbar ti dëgg la Ah, waaw yaa ngi dégg. ko dindi. waaw loolu laa lay wax par wàllu la la man alxuraan xam naa ko li ma leen wax li ma sànq da xam naa alxuraan. wallaay voilà léegi rahmaani rahim yi ci Fatiha la bokk. léegi bismillah yi. boo gisee ñu indi ko ci Fatiha. dafa nekk waajib. waaw ci lépp loo xam ne. waaw jurit baa ngi koy def. bismillah yi da caa da caa bokk. dëgg la maanaam soxla wut ñu koy werante. Hmm. même bu bokk dañ ko caa war a boole. sakka ba mu ca nekkee. ba mu ca nekkee waaw dëgg bisimilah. même bu nekkul ci Fatiha. waaw nit ki ci xelam ak gëm gim gëm yàlla yonent bi. waaw war naa xam ne war jàngal Quran te waxu bisimilah. waxu def loolu. léegi loo même bu dul Alxuraan sax même sa néeg. sax booy dugg. waaw dugg te waxoo bisimilah. léegi sa néeg lañ la mayut ngay dugg te waxoo bisimilah. wallaay lekk lañ la mayut ngay jëf te waxoo bisimilah. waaw sëgam nelaw lañ la may nga may la nga tëdd te waxoo bisimilah. waaw waaw léegi fan lañ lay mayee. ci alquran nga di ko ngay jàng leen ak caag te doo bisimilah xalaat waaw boo ko jëf yu baax yi ah, wàllu waxuma la sax jëf yu baax yi ci xel rek la ñuy wax de waaw xikmatu mooy xel ak xikmatu yàlla wax na ne afa laa yatadabbaruuna al-qur'aan am xaalaa quluubin am xaalaa quluubin aqfaaluhaa ndax du ngeen seetantal xawqaa seetantal gi laa lay wax léegi seetantal gi mooy yow dañ na la bu sa néeg may la nga dugg fi te waxoo bisimilah. ndax jurit lu wéy wéy. war naa xam ne buy dugg ci néegam. dafa war a wax bisimilah dëgg la léegi yow sa néeg bi nga moom. bu dee moom lañ la wax ne la boo koy def war ngaa wax bisimilah waa Alxuraan ni ngay jàng xanaa war a bisimilah. ah de a wax loolu nag léegi nag jël gi ñu ko jël boole ko ca raxmaani raxiim yi. waaw mooy raxmaan ak raxiim yi. Eh. dafa waral ànd ak bisimilah. Mhm. moo xam fatiha la moo xam leneen la. waaw lu mu ma a dox. dëgg la dafa war a xam nag rahmaani rahim moo tax ñuy xaj ko ca kaw kanam yàlla wan la lan ne rahmaani rahim moom. waaw moom dafa bokk ci fatiha moo tax mu indiwaat ko ci biir sax lu nit wayee di wayee di xam nga dafa àndal booy toog da nga wax bismillah. booy dugg sa néeg da wax bismillah. loolu de moom sooy dugg sa sooy lekk da wax bismillah. wallaay waaw léegi loolu xanaa conseil iblis la. Ah, waaye nekkatul borom xam-xam xanaa nekkatul xam-xam borom xam. bisimilah lan lañ ko mën a jombalee ci Fatiha lan mooy waral war ko jombalee ci Fatiha bisimilah. xanaa Fatiha bokk ci Alxuraan. yéen a bokk xanaa Fatiha bokk ci julli gi. Ah, même booy julli balaa ngaa liqaam ta war ngaa wax bisimilah soo ko liqaam. dëgg la de parce que yaa ngi jóg yaa ngi jóg jëm ci jëf. waaw bépp jëf. boo war a def boo war a def li ci yëntu nee na ku koy def te waxoo bisimilah bas jëf jooju jëf ju jaddu la. jëf ju dagg la jëf ju ñàkk barke la ah man de xam hmm. am na yoo xam ne soxlawul werante. werante ko mooy da yow dañu xam ne yow daayiratu xam-xam yow pënd ba séeru. dëgg la maanaam bu ci werante ci diwaan. diwaan bi moo xam ak boroom xam-xam bu ci mën ci wax mën naa koo sampal sama ndënd wan ko ne ko Fatiha. bisimilah ca la waaw xam nga Fatiha. Uh-huh. bismillaahi rahmaani rahiim. Eh. moo ko setal ci bokkam ci alxuraan loolu xamuñ ko. ndax Faatiha dañuy wax naan ci alxuraan la bëgg a bokk ci alxuraan. ci alxuraan mais innahu min Sulaymaana. waaw wa innahu bismillaahi rahmaani rahiim rahmaani moo setal Faatiha ci bokkam ci alxuraan. waaw ndax rahmaani rahiim mu ngi Faatiha te suratu nam li maanaam woo ba bismillah bismillah mën nañ ko werante ci fatiha la bokk mbokk ci waaye rahmaani rahim moo seetal bis moo seetal fatiha ci bokkam ci alquran dëgg la waaw mbir naka la ko mën a seetalee di ci génn mën mën naa tax fatiha nekk alquran moom rahmaani rahim ñu la koy bokkoo ci biir bokkoo ci biir fatiha te mu nekk mu nekk laaya ca fatiha mooy dimbalam di ko mooy moo tax Fatiha nekk Fatiha moo nekk alquran Fatiha rahmaani rahim. moo tax mu nekk alquran mooy carte d' identité rab Fatiha rahmaani rahim mooy carte d' identité Fatiha. allahu akbar dëgg la dëgg la. da nga wax waaw voilà ndax booy wax gars yi dañ la baqara ba naan Fatiha la Fatiha kay boolewuñ ko si moom boo affaire bi bismillah cay yàlla. waa li xel xel ak toggin bi yi nga ne nii ko si loolu rek de dem doy na misaal. ah jëf yëpp nee na jëf bu nit di def yonent nee na nañ jiital bismillah julli nag ngi ne déedéet bismillah. waaw te ñu julli mooy li gën a mag. julli mooy li tax nga mën a am connexion ak borom bi ñu ne la boo koy def. waaw sa bismillah moom bugg a biral. Ah. bokkut ci Fatiha ñoom tax waxuñ tax bu ko biree mais dañ ne bokku ci. bokku ci maanaam bu ko ci dugal bëgguñ mu am barke julli bëgguñ nga julli gi nangu sëñ bi loolu mooy nafiq yi mu kala Quraan yi nekkoon ci biir islam ñoom seen jàngale mooy moom laa la wax ne la. Eh, yow xamoo islam bi sax. ca yàlla ah yërmande yàlla rek mooy ñëw rek defal li jaam yi tawfeex ah, allahu akbar fatiha bismillahi rahmaani rahim ca la bokk ca la bokk ndax lu tax bisimilah rahmaani rahim am fàtte firi woon naa ko fa dafa am ñu ñaan connexion. Mm, léegi rahmaani rahim gu njëkk ñaareel gu mooy saraa rahmaani rahim gu njëkk. njëkk nga bëgg ko caa génne. te ñoom nangu nañ bisimilah ci lépp ci alquran 1400. 14 saar yi wala 113 saar yëpp nangu nañu bisimilah wala 114 yi. waaw ñu ne Fatiha moom boobu ñu Fatiha. waaw Fatiha xalaat Fatiha dafa am moom. ca la bokk bu Fatiha sax est-ce que boole nañu ko ci yi. lépp fàttali ci boobu xanaa du alquran. ah alquran bu dul bu dul alquran rahmaani rahiim gi moom lu mu ci demee.